asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi baaxoo ànd ak ñun seen site bi la di 24 actu ci seen beneen numéro ni ñu ko doon defee ci yi fi jàll xam naa ne kontaan ngeen ci tey ñu ñëwaat ci beneen bu espécial tey nag dañu ñëw seet ci ki nga xamoo di Cheikh Ismaïla Mbacké sëtu imaam di bu ñu nee sëtu imam euh, ki nga xam sëtu imam jeexal na wax waaye nag Serigne Abdou Khadir Mbacké imaamu imaam yi moom moo tax ñu naan sëtu imaam sëriñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu ngi lay jaar ci wu tedd bi ak bis yi nga xam ne génn nañ ko Mbàkke Balla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku ne sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha al Bachir di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi lool ànd ko njabootuk sëriñ Touba yépp rawatina. ki fi nekkal sëriñ Abdul Xadar mooy sëriñ seex moom sëriñ Abdul Xadar ak sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Modou Abdul Xadar ak njabootuk sëriñ Touba gépp ñu ngi leen di nuyu bu baax jërë sëriñ bi ginnaaw bu loolu jàllee nuyoo bu matare bi macha allah ñu ngi génn ci màggaluk euh, Cheikh Abdoul Khadir ginnaaw bi ñu ci génnee ak euh, jamono ji ñu nekk ci waajtaayu màggal am na lan nga am looy baaxee li nga xam moo di taalibe yi. waaw alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw bu nu sant yàlla rek euh, mm, ñu ngi sant euh, Cheikhul Xadim mi nga xam ne mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg di wax ne bis la boo xam ne rek bisu mbégte la muy bis boo xam ne nii manees naa wax ne sëriñ bi daa tukki woon tukki bu sori boole kook ay coono yu metti waaye jël coono yëpp def ko bànneex di ci sant dem ba sant ga jàpp ne na moom rekk attunu ko mu wax ne nañ ko ci santale yàlla wax ne li ko dalee ci ginaar ba ci gileem lu ci waay man rek nanga ko ko ca defal ma ne Cheikh Mamadou Fadel nag mel ne na ndaje mi nga xam ne ñoo koy dajee fii ci tuubaa di ko fi woote mel na ne ci loxoom la jóge waaye nag dañuy wax ne lu baax foo ko mën a def baax na fa lool waaye nag defee ko Tuubaa fi la gën a sakkane xëy na loolu lay tax Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy doomi Serigne Touba woote boobu mu woote ko fii ci dëkk bi mu mel ne nag li ci des bëree tut kon nag ñu ngi ñaan sunu borom may ñu ñu ko te képp koo xam ne yaa ngi ciy ñëw nga ñëw ci jàmm ak salaam képp ku ci yore waruwaay ngir yàpp ci nit ñi nga def ndànk ba indi njaboot njabootuk sëriñ bi ak taalibe yi ak jullit ñi ñu ñëw ci jàmm ak salaam mën a fekk bis bi def ko ni ko sëriñ bi bëggee. mel ne euh, comme niñ ko waxee macha allah matale na ku ne xam na ne jamono yi Touba ñu ngi ci nawet ku ne gis na dëkk bi ni mu mel ci wàllu assainissement ñu waajtaayu màggal gi lii ndax euh, gis nga ci am loo xam ne ni am nga kàddu yoo xam waroon ko cee baaxee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci dëkk bi. waaw kàddu yi de xanaa mooy kon soññante rek. ci nañ baaxoo daa soññee ndax liggéey boo gis rek soññante la ndax doomu aadama mel noonu moom matut te gis nañ jéego yu am solo yuñ ci doxal sax fi ne wax dëgg yàlla liggéey baa ngi dem ndànk-ndànk eh, ci fànn yëpp muy ndox miñ doon wax ak tëli yu ci bari ñu ngi koy defar léegi ndox mi it gis nañ maawu rahmati ak Touba ca kanam ak yeneen yi nga xam ne ay bërëbu liggéeyukaay la yu lëkkaloo ngir fexe manquement boobu daa am ren moo yàlla def ci ak safara kon nag yàlla na ko yàlla mottali bu ko defee nga xam ne murit yi nga xam ne nii bu sëriñ tubaay ñëwoon duñ soppi seenub jotaay képp koo xam ne am nga saw ñaq te man cee def nga fexe ba loolu Touba sa kanam laajte nga mën ko ca nga mën caa tàbbal saw ñaq nga liggéey bi ñu liggéeyal sëñ tubaa mu gën a yéwén ndax ñoom mm, liñ tuddee laaj laaj loo am def ko foo def ko laaj loo man def ko foo xam fuñ xam mel na ne gis nañ ne loolu moom ña nga ca buñ lëkkaloo ak yeneen bërëbu liggéeyukaay yi nekk ci dëkk bi nag ngir euh, fexe ba manquement yooyu daan am ak yàqu-yàqu yi nekk daa nekk ci biir suuf si te daa tax ndox mi jafee ñëw comme ñi ngi ci rek yal na yàlla motti liggéey bi waaw loolu moom ñu ngi koy ñaan bu baax te fexe ñu góor caa góorgóorlu ndax Touba léegi doonu tudd ab dëkk am réew la tax na kon euh, fu doomu aadama nekk walla rawatina ab jullit ñaar yi da nga koy soxla muy euh, ndox ak fu laab te ab jullit faaw mu nekk fu set wicc bu noppi amam ndox ngir nga mën a fàggu say warteef ba tax ñu ngi ñaan rek ñu yéwénal ndox mi ren incha allahu rabbi nga xam ne ne buñ sañoon moom Touba dara du fi manqué waaye ab dëkk la te ab dëkk nag es koy teel a prévoir ngir fagaru kon na comme ñoom ñu ngi ci liggéey ba rek yàlla na yàlla mottali lépp. ndigal li nga xam ne moo fi am mooy Serigne Mountakha mu yëkkati ay ndigal maanaam lawoon mu andiwaat ko ku xam ne Cheikh Ibrahima Fall mu ñëwaat andiwaat xam moom moo di cosaan la. dénkaat li nga xam moo dëkk bi dëkk bi da xanaa bu ko dénkaatee Cheikh Ibrahima moom dafa mel ne kon léegi nag dañoo delloowaat mbartu ca mbartu ca ndaa la moom dañ ci sant Serigne Touba bu baax a baax di sant Cheikh Mamadou Mountakha noonu ma ko daa baaxoo wax rek ku teel a xam fi dul Mamadou Mountakha di xoolee nga teel faa xoole yaakaar naa dara ndax lépp luy lu rafet walla muy lu baax walla lu muy saafara mbir teg na ca tànkam ngir loola yàlla def ci jàppandal ubbil ñépp nag boo xoolee jafe-jafe yi amoon ci biir dëkk bi nga xam ne ay kii la sax képp ku mën a ñëw duñ la wutal fa fu ñu lay limité ngir lay sa yitte nga doo nga nga lay sa yitte faaw nga wax ko na ko bëgg a waxee képp koo xam ne war nañ laa dimbalee tamu yëg ko dana ci def kemtu la ay kàttanam lépp luy tax ab jullit mën a def jumtu ay mbiram nam nam ko war a defee muy ci xam-xam muy ci eh, ci ci ci eh, daara yu mag lañ tudde université lépp mu taxawal ko ngir bëgg xam-xam dund fi waaye nag euh, taalibe yi nga xam ñooy taalibe Sëñ Tuubaa it maanaam fonk xam-xam ngir ci lañ mën a fàggoo seenuk taalibe bëgg wér waaye ci lañ mën a jaamoo yàlla ku mel noonu nag boo ko amee danga koy teg fu ko kenn tegut njëkk koo fonkal sa bopp moo tax moom yoon wi mu yoon wi mu xàll buñ ci teeloo tegu rek dana baax te rawatina liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bu am solo bu jox waa Kër Cheikh Ibrahima. dañu ñu ci liggéey liggéey bu am solo mel na nag liggéey ba sax boo xoolee àdduna nag moo baaxoo faaw mm, muy am ay détails ki coow noonu la adduna baaxoo ndax yàlla mi mën a jagal lépp rek mën a jagal lépp taxut mu jagal lépp comme comme ñun ñi nga xam ne ay doomu aadama lañ euh, ku ne bëgg sa mbir jag te sa mbir yëpp munta jag ñu ànd nosu ci mbir ci biir nosu googu danga gis liñ tuddee euh, euh, euh, gerte goo gis dana am pëpp waaw am pëpp waaw gerte goo gis nag dana am pëpp pëpp moomu nag mooy nga xam ne nii saa su ñuy jugee ngir bëgg defar ñuy jug ngir yàq loolu nag dañuy segg tàmbaliment bi nag dana nuuru lu xaw a metti waaye saa su ne boo xoolee ñoom ñu ngi ciy def communication yu rafet muy leeral ni ñu war a doxalee ñu jox liggéey bi bat yi ñu yor ak tëni yi ñuy sol ku xam waa kër Cheikh Ibra xam leen ci nag ak ma xam nañ ne ñi jiital ñoom yenn yi duñ ko def kon ña cay def loola it mooy mbalit moom nga xam ne ay erreur da ciy am loola it ñoom gis nañ ne ñi ngi seggaat képp ku ko def ñu wane waat la wane ne bëgg ko ci liggéey da bëgg a yàq liggéeyu sëriñ bi te comme Cheikh Ibra moom mm, ku ne xam na ni mu mënoon ci sëriñ Tuubaa bu ne man bañ Cheikh mun Mountakha jëlaat lu mel ni joxaat leen ko maanaam làmbatuwut xam na la muy def te bëri na lu ci saafara nag tàmbale maam liggéey nag defar booy defar day mel na da ngay yàq waaye bu ñu ba ci kanam tuuti danañ xam ne ñun ndekete liyee gënoon ci ñun ndax ña ko amut te ko nekk seen noflaayu bopp ak seen liberté bopp yaakaar naa ay coono rek lañ leen mujj jural moo tax yàlla na leen ci yàlla may ndam ak bépp murit ndax bu ñu liggéeyloo kër Cheikh Ibra rek mooy liggéey leen nañ Cheikh Serigne Touba yëpp ak taalibi Serigne Touba ndax ñooy ànd di ca di ca di ca di ca di sonn guddeeg bëccëg hmm. beneen bi xam naa ngir du njëkkante waxtu bi ku ne Cheikh Bachirou Mbacké Abdoul Khadir eh, xañ na fan yi ay coow li bari na xañ na nag ñàkk xam la wala ñenn ñi ak saboté ndax lii du fi gan ci yoon bi. yooyu <laughs> eh, de moom ci woon di ci leeral sax ak wax mm-hmm. ndax moom mi nga xam ne moom la yàlla jiital kom dem na ba xam ne àdduna noonu la baaxoo. moom moo tax ba dara metteetu ci moom xam ne ne liggéey Serigne Touba yi du yomb comme moom dem na ba xam ne loolu noonu lay baaxoo demee rek kon moom moo tax daanaka yu ci bari jotoon na leeral waaye nag du tee kii xëy di am jotug yàq te mu jaral ko muy yàq yow mi nga xam ne danga nekk ci dëggit war na laa mën a jaral ba fu fu fu fu fu aw nar ñëwee ngir bëgg na bu dëgg nga taxaw leeral na lii muy dëgg. Euh, te loolu fi ma ko bëgg a waxe mooy Cheikh Mamadou Bachir sunu boroom doo ko tànn ci njabootuk sëriñ bi mu ànd nekk feek ay nawleem bokk ak waa kër sëñ Tuubaa lim bokk ak ñoom te di ko rafet di ko rafetal seen kenn tu lay kàttan dañ ne aw xas bu jógee jógee ci biir njaboot ga te njaboot goog ñu gëstu leen ba xam ne ñii ci njaboot gi lañ bokk dëgg-dëgg boobaa xasoo mën nga ne war naa mën a dal waaye ko mel ne Cheikh Mamadou Bachir ni mel ci njabootuk sëriñ bi ak waa kër sëriñ Tuubaa yi ko nawloo ak fi ñu ko teg muy sagub yoonu murid yépp lu ne mu di ko daj bu ñu nekk ci àll ba taxawee di wax ñooñu dangay xam ne euh, maanaam lañ doon wuti ak lañ doon sàkku daa mel na daa dem ba réer leen ñu bëgg ko jaarale nag foo xam ne doonu jaarukaay te loolu li ma ci mën a leeral mooy am na tarima mu fi déggoon léegi xam nga <laughs> tarima alquran moom misaal xam nga sëriñ bi daa tari ba ci yàgg mu taxaw ndax biiru biirum biirum discours tari mu sori sax dafa amatu yoon dangay ngay junj rek ñi am xam-xam xam ne aaya ba foofu fële fële la yem ña nga xam ne xamuñ nga leeral leen ko ci wolof. dafa mel ne sax moom aay bi mu doon wax ci bàqara la nekk ci téere kaw innal lasina kafaru sawaa'un alayhim ansartuhum am lam tunsirum laa yu'minuun xatamallaahu alaa quluubihim ci loolu loon waaye ñoom itam dafa am ñoo xam ne nii aaya ba ñu indi ma nga nekk yaasin ci. Ah, loolu laay bëgg leeral rek xam nga fu fi ñu ko mën a indee ñun suñ suñ suñ suñu référence suñu royteef mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ci ni ko suñ borom tànnalee eh, ak dundam indi ko ci àdduna hmm. lu ñu waxoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mooy mënutoon a liir <laughs> ki mënut liir xam nga ci ñu man mi mën a liir mën a mën a bind mën a jàng nga ne yonent bi moo jiite ñëpp gën ñëpp mënut a liir boo dee borom xel mu gàtt nga danga naan kon yonent bi nam nañ ma bal ci kàddu gi kon xamutoon dara fekk déedéet sañ borom daa am lu mu ci doon njàngale mooy ci kiimaanu suñ borom yi ak ci euh, xareñu suñ boroom ci lay tànnee def nit lu ko soob léegi bu doon mokkal alxuraan day force boobaa it mënees na faa korisi nit mm-hmm. ci bu dee bu doon ku juum waaye moom daa tari ba ci ak mu taxaw yem ca loolo ngir bañ a guddal jataayu waxtaan wi moom daa waaw kii nag it xëy na day day mel ne moom day jàpp ne léegi dafa am lu doon xeex xeex boobu sottiwut mu bëgg ko indi ci détail bële boo xoolee digloo waxtaan wi mm-hmm. foofu it daa am yu ci yàq yàqu yu yàqu yu ci bëri te danañ ko indi ci biir waxtaan wi waaye sallallahu alayhi wa bi mu nekkee màkka te àndoon ak saxaba yi dafa am ko waxoon ne nit ki la digal dig àdduna te mënuloo lu fi dara <laughs> bu ëllëgee yowmal xiyaamit kon waroo ko faa yaakaar sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla jiitaloon ci mbindee fi ah mm-hmm. te muy suñu royteef képp kuy ab jullit bi ñuy xare da nga xam ne ne leer na ko moom ab yónente la te yàlla jox na ko baatin ak kàttan loo xam ne ni mënoon naa am xeex ba bañ a mën a bañ a am ba ay ba de ci faatu ci biir saaba yi am na ñu am doole am ñu néew doole kon xëy nag naan bu bu ko sooboon ci coobare suñ borom ñëpp dañuy amandoo Hmm? waaye ñii dañoo am ñii di ñakk ah ñii am xam-xam lool ñii néew ko lool te terewul ñëpp ay saxaaba la am solo rek mooy pas-pas bañ booloo ànd ca di xàccundoo di doorandoo màkka pour ñi nga xam ne ne jàpp nañ ne ka nekk màkka jiite rek koo koy <laughs> ki gën a xam lépp ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy tari alxuraan di ci jum parce que li nga xam ne ci mbirum suñ borom la suñ borom saa soo ca nekkee foofu moo lay won ne la lii nag sama cër la moo tax fi ne ni eh, damay leeral ne même même tari di gàkk sax dañoo xamul rek waaye tari di gàkk sax moom da du dara tudd suñ borom yii nga xam ne ni maam suñ borom a ko jago alxuraan bokk ci mbirum suñ borom képp ku koy tari suñ borom dana la won ne lii sama yëfa te xam nga lan moo bon tari alxuraan di ko yàq heureusement it ka doon tontu gis nga fa mu jëmit yàlla yi dag fa waroon ne ak maandu la kii samay kàddu lay wax samay kàddu nag ku ciy wax mën nga caa réer misaal samay kàddu ku ciy wax mën nga caa réer comme nag moom moo moom moom sëñ bi daa indi eh, dem ci bàqara moom mu dem ci yaasin ñaari yoon yu bokkut la kon moom na xam ne foofu yàlla am na lu mu fa wonale am njàngale kon ab jullit day maandu moo tax Cheikh Mamadou Basir eh, nañ ko bàyyi na ko yàlla def rek te ñun ñi nga xam ne am nañ ko muy ñun murid yi xam nañ fi mu ñu féete xam nañ lim ñu jariñ ku xamul nag toogal jàpp sa njàmbur waaw ndax loolu xam nga li tax ñu koy wax ñun ku de nekkut ak moom mënoo koo xam wax naa ne bokk na ci ñi ëpp démocratie ci ci ci ñi may ñi may ñi may jaxasool wala ñi may fréquenté maanaam nit ko am démocratie ne moom moom yombut nga koy gis ñi nit muy koo xam ne dana xam ne yow sa xol fii nga ko jëmale misaal te du ca waxtaan ak yow du ca jëm yow jëm ak yow du ca du la ca laaj dara euh, te loolu mooy xam naa ne xëy na tamit boo ci duggee da ñu tontu la ca mooy lu mel ne euh, Seydina Ousmane waaw Ousmane Seydina Ousmane Sonko comme noonu ñu koy waxee foofu li ma ci jubloo leeral mooy euh, xanaa xamu ne Ousmane. lenn lu bu amee lenn lu lu mu xaw a perte yàqule ko mhm. ñi nekk ci internet bi te xamuñ communication bu baax ñoo koy indi gone yi wax ci ci ci derrière clavier yi quoi ñooñu laay wax yu ci bëri bëri ñoo ko indi erreur yooyu benn Touba mhm. dafa am kàddu guñ guñ tënku am kuñ jiital lii di politique bu àdduna mën nga cee fàggoo sa àdduna mën nga cee fàggoo sa àlaaxira waaye politique bi ñu baaxoo xam ci àdduna rek lay yem soxla nañ ku ko ku ko ku ñëw changé ko waaye yow bu fekkee da nga jàpp ne changement bi ci yow rek lay yem yow yaa ko xam hmm? danga nga réeral ñu bari Touba élection yi jàll misaal ma indi ci leeral kan moo ko gañe hmm? Ousmane Sonko du moo ko gañe léegi Ousmane Sonko boo ko gañee ci biir sëriñ si dangaa ngaa bëgg a wan ne misaalum taalibe rek a tax Ousmane Sonko gañe explication bi compliqué na de. Ah, bu bu bu bu buñ ko leeralee rek bu baa boobaa danañ xam ne lenn li muy yàqule ñee nekk ci internet bi tey wax waxi yenn yi jéggu dayo yi ñooy ñooy yàq xam nga man misaal ku ma xam-xamoon ne eh, am na parti bu ma nekkoon ay jamono. Mm-hmm. te damaa waxoon lu leer ndax ki ma ki ma parti ba ma nekkoon dama ne kii liñ bokk pas-pas a tax ba ma demee ba xam ne gisatuma sama bopp dama ne damay bàyyi. ma bàyyee ku ma faraloon Ousmane Sonko laa faral ah léegi kon image bi comme <laughs> ñëpp gis ko danañ xam ne moom laa faral. ba léegi ba léegi yaa ngi wéy di maa ngi wéy di ànd ak moom misaal bi am lu ma ciy leeral nag moo tax kenn forcé wu ma kenn néew ma moom nga faral àndu maanaam kenn kenn gëru ma ngir ma far ak moom sama xol bi laa ko bëgg ngir ànd ak moom léegi lu ma ànd ak ànd ak Ousmane Sonko it du tey dama am pas-pas. te muy sëñ tubaa du ko yemaleek dara ki fi nekkal sëñ tubaa duma ko yemaleeg dara ki se ki fi nekkal sëñ tubaa ki mu jiitale du ma ko yemaleeg dara léegi bu fekkee ku mel ne ñenn ci nga xam ne misaal am na ñoo xam ne mbari làmm lañ am na ñoo xam ne ci bitim réew lañ ne di jël wax yi di ko traité noo xam ne nii luy suufeel suñuy kilifa lay doon man mi nga xam ne ne damaa far nga xam ne damay damay damay gëm ne kii lim procès bi mu woote projet bu baax la lool te bu ñëwee ci réew mi dana jariñ it waaye mi ngi jël projet boo xam ne ni ba ba ba fàtte na nag yow daa am ñoo bokkal projet bi te xamoo leen ndax leen na léegi léegi léegi léegi ñi nga ñi ñenn ñi mën a manifeste woo ñun duñ mën nañ ko ba a man man ñi ma xam xam nañ ne élection yi jàll bi ma demoo ci bureau de vote yi bi may vote sax voté sax am na ñi toogoon ci ñi nga xam ne ñooy ñooy xool <laughs> euh, carte yi xam nañ ni kii daa perfectionné wu lu ma mës a dal nga xam ne bi ma ñëwee carte Sonko yi bi ma ko gisee rek xol bu sedd bi ma ànd ak rag-rag ji ma àndaloon jax tax na ba ja ba ma jaawale ko ba jël bu Sonko bi nga xam ne bi ma duggee ba ci biir na yi laa sama xel ñëwaat rek ma xelaat ne bu Abdoulaye Wade bi lañu war a jàllale léegi man bu ma bëggee noonu Sonko man nga xam ne procès gëm naa ne doy na ma ngir ma mën ko mën a jàppale yow nga mm, sóoraale ma ci ne man nit ànd naag Sonko ba nga jàpp ne jël wax jëpp généralise ko wax jël kàddu yu ñaaw teg teg ko teg ko sëriñ sëpp wala nga jéggi si ñu ànd ak eh, Sonko te doon ay kilifa dem ci seeni kilifa di wax wax ju ñaaw da leen ni taay lool te bëri na luñ ci yàqule loo xam ne ñoom ñoo koy yàqal Sonko heureusement nag it taxoon teel naa génn ne képp kuy wax wax ju ñaaw jëmale ko ci kilifa moom boo ko ci man xam nga loolu moom wax jo <laughs> wax jooju moom wax dëgg yàlla kooku dawal na responsabilité am waaye ñoom ñi nga xam ne nañuy wax suñu kilifa lu ñaaw bokk nañ ci li yàqul Sonko lu bëri bëri te Touba gi sëñ bi élection yi jàll xam nañ ne jeune ma li ñu tuddee jeune marabu bokk nañ ci liggéey li liggéey bu rëy ba Ousmane am lim am Touba ndax ñun taalibe yi nga xam ne ay xale yu góor lañ tollu seen digg doole ñoo ñooy jaxasoo ñoom guddeeg bëccëg ñooy fréquenté ñoom ah yi bi mu amee ku ne daj nga ci la nga ca war a daj ngir ndam am waaw léegi nag buñ ñu ci xoolut di ñu fi tegg di wax suñuy kilifa lu ñaaw day metti suñuy xol te yooyu lañu war di moytu ñoom nañ seetaat beneen communication xam ne lu Ousmane Sonko di ñàkk ci yenn yii ñoom ñoo ko ñàkkale parce que nit ki boo ko bu jugee di wut di la xeexle nga woon ne ko doo dara tekki woo dara sa kilifa tekkiwu dara yéen daa am loo leen ñor mooy seen intérêt bopp bu yàggee nag day reculer bàyyi laa xeex bi ndax bu mbir jugee ngeen ne da ngeen a war a jug buñ bëggee jug ngeen ne da ngeen war a toog seetaan leen da ngay dem ba doo xamati foo taxaw foo war a taxaw. réew mi bëri bëri na coow grève yaa ngi fii tulleeg màlle ñu ngi ciy dégg ay ay Cheikh Bara Ndiaye ak ñeen ak ñeen ñoo xam ne lekkuñu naanuñu nee nañ dañuy def est que loolu gis nga ne loolu am na ak diine. waaw maanaam day xam nga lu àdduna moo bind xam ne lu mu ci mën a doon ci yooyu yëpp rek euh, Cheikh Baara nit ku baax la fu baax la bokk ku mel ne sëñ Assane Mbàkke ñu ngi koy ñaanal mu génn ndax sunu mbokk la te ni ci mën a waxit te man koo dimbale ñu dem dimbale ko ngir ngir sëñ Touba ndax sëñ Assane euh, ci njabootuk sëriñ bi la bokk kon nañ ko dimbale rek ñi ko mën a taxaw nañ dem taxaw ko ngir sëñ Touba euh, ñoom Cheikh Baara it ñu ngi leen ñaan ba ci Seydina Ousmane euh, lépp luñ jàppoon ci bañ a lekk ak bañ a naan bu leen ko daree àdduna jaral xam nañ ne bëgg nañ seen réew ñu ngi góorlu waaye bu leen ko daree àdduna jariñ muy e, fexe ba lott ba nga xam ne xëy na mën naa am la bëggoon sax bu fekkee daa am dañu bëggoon mën nañ ko am waaw lu mel noonu nag dañuy fexe ba di ko moytu ñoom muy bañ a bàyyi bàyyi bañ gee lekk ak bañ a naan moom nañ ko nañ ñu ko dimbalee bu ko defee état bi it dawal yërmande ci ñoom dawal gi yërmande mooy euh, am réew boo ko jiitee ba la la desee bëriwut ñu santaat yàlla ci euh, comme président de la république moom it tàggoo na tàggoo woo xam ne euh, dalaalaan na xel yu bëree bari ba nga xam ne loolu moom comme dañu woon day dem ñu bëri dañoo jàpp day dem troisième mandat mu dakkal ko kooku wàccaan yu bëree bari kon nag li ci des mooy li ci des ñu doxal ko ci dëgg ngir fexe ñëpp am jàmm détenu yi nga xam ne dañ leen a téye it ñu bàyyi ñëpp libéré leen ko defee dëkk bi stabulaat ndax fi ne ni moom benn fitna boo xam ne ni war naa mën a jug bëggatuñ ko ci réew mi te mel na ne dana yomb ndax lu lu tax mu yomb mooy képp ku war a dem élection ñu bàyyi la nga dem ci njëkk képp koo xam ne détenu nga xam ne politique lañ la téye ñu bàyyi la bu ko defee ñun ñëpp ñu xam ne ñoo bokk ndey bokk bàyyi man boo xoolee politique misaal mi ma ciy wax mooy ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye nga xam ne boo xam ne boo xoolee xam ne ci yoonu sëriñ bi loo am murit la bu dee ci mbokk sama mbokk la tab bi jamono hmm, couvre-feu yaakaar naa bokk naa ci ñi ma njëkk a wax dëgg ji ne lii wurta am mi ngi noonu te terewul sama sama mbokkum taalibe la te sama mbokk la it bu jàppale doon am nga xam ne misaalum dañ ne kii day dem élection misaal te nga xam ne eh, gis naa ne ñay ñay dem eh, ñëpp maanaam mm, def naa seen i njàngat te nga xam ne ci far doo nga ko defee te far gi mooy ak mbokk ali laay wooteel waaye eh, àdduna comme doxewul noonu ku ne sa démocratie bopp nga moo tax ñuy doxee noonu waaw looloo tax nag nañ jëlaat mbir yëpp rek teg ko ci jàmm ak salaam bu ko defee taalibe yi xamaan ne internet baa ñuy sànq nag ndax dañ nañuy xam ne gis nga àdduna nii la yàgg baaxu di demee histoire yi ñu fiy nettali ci saaba yaak noonu yonent bi amoon ak niñ koy bette di ko teggal ndëggi sarax ak di ko di di ko gaañ di toroxal ak njabootam noonu la demee ba ci njabootuk Sëriñ Tuubaa gi àdduna faw mu am ñuy bëgg am lu am ñu am lu leen naqari am ñuy nekk ci kanam am ñuy nekk ci ginnaaw noonu la ko àdduna baaxoo bu ko defee ku ne na nga xam la nga war a def nga def ko waaw xam nga loolu it c'est important ku ne la nga war a def rek def ko tala bu ci xool kenn ku dul sa borom ndax day am bis boo xam ne ni kuñ njaay ak noo mën a toll ak dara joo mën a am ak muy muy muy muy ci bépp fànn boo mën a ne te du day dund ci adduna ji bis dana ñëw ñu takk la takk say tànk yow ba nga dëgër ñu jëmale ci armeel yi nag boobaa lenn rekk la fa yóbbu muy sa jëf ju baax ñi la doon jay ak di wax ne yaa fi gën yaa fi man yaa fi yaa fi jiitu buñ demee ba ca aramee la ku ñëwoon sa waa ji nga doon jiital àndal ak moom dugg ci pax mi lànk lay def day dëppaat ñibbi këram di xarub bisam kon kum mën a doon ñëpp laa ko boole nag ku ne rek looy def ci uh, sa diggante nag ci jiital sa borom boo ci jiitalee sa borom rek yu bëree bëri da nga xam ne adduna amu solo te ñun ñi ñëpp ñoo bokk nday bokk baay waaw loolu laay diggal ñëpp di wax ne li taxoon ma doon leeral lii mënoon na nekk fi ba ah, Macky Sall jeexal te du kenn du xam fu ma war a far waaye leeral lañ ci jublu rek ndax comme kee moom bàyyi na dematul troisième mandat kii téye nañ ko téye gi moom ñëpp xam nañ ni mu demee waaye li tax ñu koy leeral mooy mënoon nañ ci maandu tey ñaan yàlla yonente ba ñu ko jàngal ba mi leen mbir boo ko mën saafara danga koy naqaru sa biir xol waaye ñu ciy jubloo leeral rek mooy gis nga démocratie nit ki ko xamut mooy nit ki fréquenté wut ak jàpp ne amu ko waaye suñuy kilifa kenn mu suñoo jiital orienté ñu jëm leen faral kee wala bàyyi leen kële dañu dañoo neutre ci ñun loolu nag koo dëkkul mënoo ko xam moo tax xam nga ñu bari dañuy dugg ci détail yooyu waaye nit boo dëkkut ak moom mënoo xam mooy kan suñu kilifa ñu neutre lañ ci su suñu jëmm wutal ñu fu ñu war a jëm ñun ñooy xool fa ñu neex ñu jëm fa billahi lasi la ilaha illa huwa Ousmane Sonko laa woote loon élection yi jàlla tam mi boo dendeeg man da ngay te xamu dangay jàpp ne man feneen laa far waaye waxee indi wax mooy ñi nekk ci internet bi te ne Ousmane lañ faral te ñu leen gën a faral Ousmane nekk fi fuuf noppi di def jëf la jëf lañ war a jëf kon buñ ko booleeg nag di jël kilifay jàmbur di yàq lu mel ne xeme guddeeg bëccëg te duñ ci am ndam nag ñoo ñoo tam mat a waxal xam ne dañ naan dañuy defaral dinaa Ousmane waaye defaru lañ ko dañ ko yàqal loolu nag kon yàlla na fi yàlla indi jàmm te sunu borom mi nga xam ne ne moo ne dëgg rek kay sax ñu ngi ñaan li nga xam ne mooy jàmm ci dëkk bi tey dëgg ci dëkk bi yàlla na ko suñu borom mujjee indi te muy li gën ci Sénégal yëpp bu ko defee ñi am ñi bëgg liggéey euh, te ñi bëgg liggéey te amuñ ko suñu borom dimbali leen ko defee état bi it profito ci li ko desee gaaw fexe ba jeunes yi nga xam ne ñu ngi dugg ci gaal gi ak ci fu nañu fay dem ngir teral seeni wajur ñu gaaw na créer lu mel noonu te réewum Afrique ñu jàmmoo booloo ndax dafa am yu am solo yoo xam ne ni adduna si nañ ko soxla te yàlla dénkuñu ko ñu ne war a xool nu ñuy fexe ba waggar loola ba gis ci suñ bopp waaye saa ne niti adduna yi tubaab yi ñu ñuy jaxase ngir bëgg jël lu mel noonu loolu nag ñun nañ lànk te am la te foofu lañ toll kon foofu it li may jaar mooy su ma xasee wax loolu ba noppi dañuy fexe ba bokk ci sénégalais yoo xam ne it bu nit defee lu baax nga wax ko bu nit defee safaan it nga wax ci safaan bi ci wàllum ko jiitu xam nga mel ne mel Macky Sall Macky Sall fuñ ne fuñ ko xasee moom li mu war a nangu mooy xas wa daa jiite moo tax moom bu xool jëmmam ne jëmm ji lañ xas bis bu toogoon Fatick gee doon Macky sàllum kese du dégg benn baat bu ko naqare foo déggee lu la naqaree war ngaa xam ne li nga jiitee tax kon moom nay nay nay nay jëlale te jéggale te yàlla tax boo ko defee moo xam ne nag nit ñi wax dëgg yàlla àdduna it nit ku ne ta nekk rek continuer ñu ne defut dara def na fi dara loolu moom boo xoolee ndakaaru liñ tuddee wàllum infrastructure yu bëree bëri wala wàllum fii nit jaar wax dëgg yàlla defar na ko bo waaw waaw yooyu defar defar na ko autoroute yeeg autopont yeeg ni ñu koy sax moom nga xam ne état continuité la maanaam am na lu am na lu mu defar bu dee ci àll bi it boo demee lu mel ne côté yi Saalum ak fu bëree bëri wax dëgg yàlla am na yu mu def bu ko defee keneen ku ñëw it noonu ngay def etaa continuité la moo tax it bu di xas nit it boo woon ne ko def foofu dara it gën gënut waaye da ngay wax lim lu baax lim def it la nga xam ne war na koo def te defuk nga soññ ko ca ndax ñun foofu lañ war a toll waaye bu ñu toppee rythme bi maanaam ak noonu lay jur politique du noonu ndax sama classe ca ginnaaw la ak na ma daa politiquer ci politique maanaam discours politique ni ma ko daa gisee boo ma tegalaatoon samay kàddu tey du day wute ndax lu tax da ngay jàpp ne ndekete politique maanaam dangay gis li nga xam ne jàpp nga ne doxul nga dem dox na waaye du jëmmi nit ki ngay xas waaw ndax Sonko euh, ak Macky sàll ñooy bokk lépp fi ne boo toppoon ba ci mbokk ñoo bokk lépp kon nañ fexe ba wàllum waaso ak wàllum tarixa ak wàllum euh, lislaam euh, nañ fexe ba buñ ko dugal ci wàllum politique ndax day dem ba ay noonoo lay jur te dara jëru ko fi waaw kon nag sama mbokki jeunes yi nga xam ne ñooy bokk jamono dee leen ñu rusé rek ci suñu waajur yi ak suñu maam yi dee ñu ci rus ndax li ngeen bëgg lañu bëgg te ñaar ñu ànd bokk lu ñu bëgg nag boo génnee di waxaat ca leneen loo xam ne nag leneen la day tax nit ki dellu ginnaaw yàlla nañu yàlla doolee dimbale asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokk yi ni ñu ko waxee woon tey ñi ngi ñëw seet si woon Serigne la Mbacke sëtu imam comme ni mu ko waxee waaye nag di gërëm di sant baax ñi àndal waaye di defal benn hommage ni mu ko waxee Serigne Assane Mbacke di sët ci ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Fallilou Mbacke Balla di ko ziar di ko ñaanal nag eh, ci màggal gi ñuy jubloo mu ñëw màggale si fii ak mbokk taalibe yi eh, yàlla am am na ko mën na ko waaye nag ñu ngi koy ñaan di ko fàttaliku mm. comme ni nga ko waxee rek Mbacke ñu gën koo defal ay ñaan xañ na am na loolu moom bu fekkee ñaan la ñuy ñaan nga xam ne loolu sax président lañ koy ñaan ndax day am loo xam ne ni dafa am sunu baay ju baax muy sëñ Abdou Samad mu sori ñu sony bu mu defoon te loolu it maa koy digal maa ngi koy maa ngi koy wax sax sama bépp kilifa goo xam ne ne man nga loo man ci lu baax ngir sunu mbokki détenu yi nekk ci kaso yi ñu libéré leen rawatina safar gi sax te Màkka it loolu maa ngi ko ci lancé en appel na ab tàggatoo lay doonaale gis nga safaru màggaluk sëñ Touba gii ñu dëgmal muy safar gi maanaam liñ tuddee euh, xeetu nu ko tubaab tuddee orovaar xaw ma waaw ci ci tàggatoo bu neex na libéré détenu yëpp ñu màgg ñi nga xam ne nii maanaam dañ leen a téye ngir wàllum politique rek maa ngi koy ñaan ngir sëñ Touba te jàpp nañ ne buñ ko ñaanee ci sëñ Touba mu bàyyi ñi ñu téye woon ku mel ne Cheikh Bara Ndiaye ak ku mel ne sëñ Assane Mbacke ak ñi nga xam ne xamuñ leen te dañ leen a téye ci kaso yi naa jiite jiital euh, xolu de bàyyi ñëpp ñu ñëw ci bisu sëñ Touba bi. loolu moom maa ngi koy ñaan ngir sëñ Touba di ko ñaan ngir jëmmi Cheikh Mamadou Mountakha te mu rus mu rusaale ko ci Cheikh Mamadou Mountakha ndax xam nañ ku ne xam na ne maanaam euh, li sëñ mun Mountakha doo wax jàmm ci réew mépp rek war naa tax bis bu bis bii mu ñuy woote te sëñ Mountakha jiitu ci ñi koy woote. na ko na na ma ko sagale waaye na ko sagale suñ Muntaxa rawatina murid yi waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bu ko defee nag ñun ku ñuy dàkk ci màggali màggalu Tuubaa gi ndax safar geren moom ni ma ko gisee nag mooy sëñ Cerno war na ñoo xam ne dafa war a dafa war a murite nag laa ilaaha illallah daa war a murite war a murite murite gi mooy nañ ko def ci ni ko sëriñ bu digle kuy ñëw Touba na nga sol lu yiw sol lu jot ba noppi nag loo man ci teraanga ngir ñu teralee ko sëriñ bi ñu def ko waaye nag ñun ku ñuy ku ñuy séntu di ñuy di xool ci période yi sës ci màggal gi moom ñaa nga kër sëñ Touba ga ndax dafa am koo xam ne daa takk ndiggam ngir liggéeyal sëñ Touba muy Cheikh Mamadou Bachir taf bëgg nañ ñi nga ñun ñi nga xam ne ñooy sëti sëriñ Touba yi rawatina muy ñun ñuy ay doomam fu mu gëstoo gis ñu waaw ni Cheikh Ibra defoon Cheikhul Khadim xam ne takk ndigam ba fu mu gestoo gis ne Cheikh Ibra ngi ci wetam na ko wër ne bi soo bi yàlla liggéey bi mu liggéey Sëriñ tubaa du ci wet waaw njabootuk Sëriñ Tuubaa gépp ak taalibe bii danañ ànd ak moom gunge ko ci ba coono yi nga xam ne lim ci gàddoo ci coono la ci ëpp du ko yëg kon nag yàlla nañu yàlla may màggal gu neex jërë